لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر بوكي نيسيتان نيلين نيلين زيارة دواتشي كونك شواتشوائم موقمي غور ولا جيين مك أجنو. جي سيجيتر شنو بابو الخليفة شيخ محمد الماحي ابن الشيخ إبراهيم يس خادم الأمة ايتام ديشيتك أي إمام أكبر شيخ أحمد التياني ibni Seydi Ali Cissé di nuyu itam bu baax Cheikh Mouhamadul Mahi ibni Seydi Ali Cissé porte parole di nuyu Cheikh Mouhamadul Amin Baba di leen ñaan yàlla yàlla yàggal leen fi may leen wér ak gudd fan ak kàttan mottali seen yéene ci faydu bi di nuyu Cheikh Ibrahim ibni Cheikh Mouhamad Zeynab Niass eh, di ko nuyu di ko nuyu nuyu nañ mboolem ay rakkam yu góor ak ki jigéen di nuyu itam Mawlana Cheikh Ibrahima Cissé bàyyi sa bàyyi suñ ko nuyu nuyu nañ mboolem waa xadara bi yëpp bàyyi wuñ kenn ñu leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel itam ci weer bu màgg bi ñu nekk ñaan yàlla yàlla na yàlla defal ñu ci tawfeex nangul ñu suñu koor ak suñuy jaamu yàlla lépp lu ñu jaamu yàlla rek yàlla fulal ñu ko def ko defal ñu ko ay yiw ndax weer la boo xam ne boo defee benn ñu fayale ko fukk rawatina nag fukk yi nga xam ne moo nekk ci digg bi kon di itam suñu soppee Seydi El Hadji Faye borom meloy pee bi nga xam ne maxana yi rafet yi moo ñu koy jox kurus yi rafet yi dàll yég si jaade yi di wax ñep nañ dem ci mom mu jaay len ci yére yi ak bagage mi rafet numéro 78 018 018 17 71 moy numéro kep ko ci oo rek di nga ko jot inshallah rabbi so demé dina la defaral kem lu tollok li nga bëgg di nuyu bax suñu jigen euh euh de nga euh muy couture service nga xamne mu ngi nek liberté 6 asafula liberté 3 mu ngi nek liberté 3 numéro nek 77 638 dégg nga dégg nga 81 39 képp ku ko oo rek di nga defal ci yére yu rafet yi nga xam ne moom la ñuy sol depuis émission bi euh, ba léegi nii yaa ngi dégg ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla yàlla barke seen liggéey ci barke Baye radiyallahu anhu di nuyu itam groupe soppay Cheikh Ousmane Niass ci góor ak jigéen mag ak ndaw di leen wàccee seen wàccuwaay seen numéro baa ngi noonu 77 600 euh, dégg nga 681 54 18 ku leen oo rek di leen jot boo bëggee intégré ci groupe bi. yal na yàlla defal ñu tawféex ci barke Baye radiyallahu anhu bismillahi rahmaani rahim bàyyi ngay kon ne di jàngale seerul xal bi diwaanu seerul xal bi mooy doxo xol bi doxo xol bi ci tagg yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy soppeem waaye itam ci pays boromam ah jàngoon nañ ci dégg nga ci xarfu alif ba ñëw ci dégg nga xarfu ba ci balaa inna haadihi ardu taha muhammadun yaa ngi dégg baa كود ندي di وقد جاء من man وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى دجى الكفر والطغيان إذ جاء أحمد وأشرق النور العلم والرشد والتقى ألا اعتنقوا دين الرسول فتسعدوا بايمونه وقد جاء دكلنكو نصر الله نملك يالله ليب من لي جانغال بيونتي محمد صلى الله عليه وسلم gàddaaye màkk jëm Medina wax naa la def na màkk fukk at ak ñett ginnaaw yaa ngi dégg ci la gàddaay dem Medina dafa fukk at génn àddina waaye nag Medina googu Medina gu barke la Medina googu Medina gu kawe la moo tax bàyyi ne dégg nga xurug aqiqa ak salxuug ak xarxas lépp foofu lañ nekk de yaa ngi dégg ak bataxaan waaye nag xari uxut ak xat ndax yëpp fa la xawee waaye waxal rek ci gàttal ne gi fa la yëkkati ko fala la màggee moo tax bàyyi ne waqati jaa a dikkal na ko nasrullahi ndimmal ak yàlla ida jaa dégg nga dégg nga nasrullahi wal fatxu moo tax bàyyi ne wal fatxu itam waxoon naan seydna aboubacar koro ba dégg nga saar dafa jooy jooy méttee métti waaw mu ne nga saar bi da koo xamal ne rek yonent bi jeexal na léegi tey mu làqu yaa ngi dégg te yàggul dara ginnaaw fatxu googu su la ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuy ji boromam li ko ko may mooy bëgg yàlla ak jege ak dégg yàlla yaa ngi dégg moo tax bàyyi na jëkkal na ko nimmal ak yàlla waaye jëkkal na ko itam fatxu de moo tax wali yàlla yu bëri bëgguñ gaaw a am fatxu ndax fatxu waxtu bu dikkee rek dem day taxaw de yaa ngi dégg fatxu moom dara nekkul ci ginnaawam lu dul euh, mawtu kon nag ndax matal na nit ki day matal rek dem ku matal dem moo tax olof naan yàlla na ngi yéex a matal كون نصر الله نم لك يالا ديكل نبي صلى الله عليه وسلم والفتح اك فتح وانتهى اك ديتال دي دوجل كفري يا ديغ لن كافر كفر والتغياني اك ديغ اك موتي اذ جاء كم ديغا دمنا دمنا لن مو دم بان دوجل كفري لن ما دمنا والتغياني سين اك موتي ايتام دمنا ينكو كاك لا دم من اذ جون يا قمني جاء ديكنا احمد احمد من بيون سي محمد صلى الله عليه وسلم ñëwee rek si la lëndëmal kéeféer dem si la ñëw ooteeg benn diine ooteegi jaamu benn yàlla mu di si ñoom lool nga ne ko ñun suñ junne yàlla yaa ngi fi suñ soxla yi ba léegi mu ñu të nga ñëw bugg ñoo ooteloo ci ñu gëmloo ñu benn yàlla waaw ah loolu de mënut nekk de yaa ngi dégg mu gëm yàlla rek topp ndigalu yàlla di oté rek yaa ngi dégg ci ndigalam yaa ngi dégg yoonu ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ba yàlla may ko fatxu ak nasru bàyyi mu ne du jël kufri dem na yaa ngi dégg war tuxiyaani seen ak mewte dem na bokkoon na seen mbewte bu ñu amee doom bu jigéen rey bokkoon na seen mewte demoon ba jël seen alal ne duñ gindi ci ñoom duñ jaay ci ñoom waaye itam loolu yépp lu ko wane mooy ñàkk xam rek yaa ngi dégg ak réeré yàlla rek moo waral loolu moo tax bàyyi ne ñu ko kañ la dem mu ne jamono yi nga xamee ni ngi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw na bi mu dikkee rek la loolu lépp dem kon nag waqul jaa al xaqu wa zahaqa al batil in al batila kaana zahuqa bu dëgg ñëwee rek neen dafay dem de yaa ngi dégg bàyyi mu ne wa ashraqa jolli wala wa ashraqa fenk na ilmi leer ak xam-xam de mu ne de nga wa ashraqa fenk na ilmi leeru xam-xam war ruj ak ñub wa tuqaa ak ragal yàlla bàyyi mu ne bi yonent bi dikkee itam la na ma kéefeer dem na bi yonent bi dikkee itam seen ak mew mew ca dem na bi yonent sallallahu alayhi wa sallam dikkee itam leer ak xam-xam fenk na leer ak xam-xam jolli na yaa ngi dégg ndax moom mooy jëmmi xam-xam te xam-xam itam ci moom la doon ballee waaye itam ñub ihdina sirat al mustaqim bi yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci la am de yaa ngi dégg wa tuqaa ragal yàlla yaa ayyuha alladina amanu taqullah fay mu ne amanu aminu yaay ay ñu gëm yàlla te kenn mënut a am gëm dégg nga ragal yàlla te amoo gëm yàlla bi yoon sallallahu alayhi wasallam ñëwee oo leen ci benn ak yàlla oo leen yaa ngi dégg ci benn xibla ñoom ñëpp ñu nangu si la ñu amee ñub si la itam ragal yàlla bàyyi mu ne alaataniqu doqoon donq wante leen yaa ngi dégg dina rasuli ñeel dina yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa tasaadu kon da ngeen texe de bàyyi mu ne nag léegi li xew nag mooy nañ nañ nañ doqalante mooy nañ nonkulante yaa ngi dégg ñëwal rek moo oola nga dugg ci diina gi comme ni ko Aboubacar defee woon Seydina Ousmane Seydina Ousmane moo daan jox abu Aboubacar mu koy jaayal te boobu diina gi ñëwagut si siira yaa ngi dégg Aboubacar itam Seydina Ousmane woolu ko lool lool lool lool yaa ngi dégg moo tax Ousmane alalam ji jiitu na diina gi ba ko defee rek Seydina Ousmane fekk mu ngi tukki demoon na Cham Aboubacar tub si ginnaawam si maire ba mu dégeeloon sa marché ba maire bi na ko yow de yaay doon yaay nekk xalifa yonent sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mu gis yonent yi mu ne ko lan moo sa teetal mu ne ko yëkkatil sa yére bi mu yëkkati yéreem bi tampon ba nga ko tamponal mu ngi sa biiram maire bi wan ko tampon bi mu ne ko nag soo demee na nga ko séddee sama mbëggeel waaye itam na nga ko séddee sama gëm yàlla ci moom de bi mu demee gis yonent bi yonent bi oo ko ci diine mu ne ko lan mooy sa teetal mu ne ko maire maire ba nga dégee yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko maire ba nga dégeel yaa ngi dégg te yonent bi fekkeewut de waaye ndadam ni mu xamee mbiri lu feeñ noonu la xamee itam yi nëbb yi mbiri xayb dafa me dafa meloon ci moom nit ki mbiri zaahiri moo tax bi Seydina Ousmane ñib see nag Aboubacar waxtaan ak moom ci diine gi mu ne ko yow lépp loo dugg rek dama ciy dugg ngir lan ndax fi mu tegoon Aboubacar ak ni ko wóoloo ak dëggoom ak jubam si la Seydina Ousmane tuub kon nag loolu mooy alaataniqu noonu la nekkee tamit tey si faydu bi léeg-léeg nga tarbiyu sa xaal tàng lool nga xacc ñu bëri noonu la nekkee itam tey si tariqa bi nga jàpp tariqa bi dem seen kër jàpp loo ñu bëri tariqa waaye day fekk nag kooku nekk ku dëggu nekk ku bëgg loolu dee nga mooy may loolu de kon nag alaataniqu diina rasuli fatasaadu bàyyi mu ne kon danañ texe comme nu diina gi ñëwee nekk fenk ay xam-xam ni dina ñëwee nekk fenk waaye ñub ak ragal yàlla faydu itam noonu la ñëwee nekk fenkuwaayu ñub ak ragal yàlla moo tax bàyyi bu nekkee waarisatu muhammadiya kon lépp lu nekkoon ci xaqatu muhammadiya feeñ fi rek dina feeñ ci faydoom bi moo tax waxtu boo ñëwee di nga am xam yàlla waaye di nga am ragal yàlla waxtu boo amee xam yàlla am nga iman moo tax ko yeggaan ci yàlla bàyyi sant yàlla ci dolleeku ci iman di nga dolleeku ci iman ñaareel bi itam boo siiru rek am ragal yàlla waaye di nga ci jëlee ñëpp di ci jëlee xam-xam bees yoo xam ne boo ñëwutoon ci faydu bi doo ko am de doo ko am de moo tax ñu ñëw texe nañ ñu ñëwul nag texewuñ te duñ texe mukk mukk mukk moo tax bàyyi ne kama sahid almaaduna wazkur imamahum abou bacrin mu atqa mualla musaddadu kon dal su bàyyi noonu bu subaa mu indi nag di la indil texe sahaaba yi nga xam ne texe nañ aboubacar sayidna omar sayidna ousmane sayidna ali seen ak texe si lan si dugg gi ñu dugg ci diine gi yaa ngi dégg kon nag diine la goo xam ne képp ku ko jàpp texe ba faw képp ku ci jàpp texe addi ba faw tariqa bi tariqa la boo xam ne képp ku ci jàpp texe ba faw képp ku ci jàpp texe addi ba faw faydu bi faydu la boo xam ne képp ku ci jàpp texe ba faw képp ku ci jàpp itam texe addi ba faw lu tax diine gi mooy inna diine indillahi islam mooy diine gi nga xam ne moom mu ngi ci diine yi waaye itam moom la yàlla wax ne mooy diinaam jël mboolem diine yépp yi fi jaaroon mboolem yonent yi fi jaaroon yépp jël seen i téere laxas ko def ko ci benn téere te mooy alquran alquran boobu wàcc ci weeru koor shahr ramadan ladi unzila fii alquran ba pare gële yonent bi mboolem maqaama yi nekkoon ci yonent yépp mu dëxiñ ko ci moom ooteloo ko diine gi nga xam ne moom mujj ci diine yi moo tax boo ci jàppee rek jàpp nga ci bu mag yàlla waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu tariqa bi itam du tariqa ak cheikhu tiyaani waaye tariqa ak yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam da kullu shuyuqin wasar la ko waxoon bàyyil mboolem sëriñ ñi yaa ngi dégg yi nga jàpp yëpp bàyyi leen maa si sëriñ maa si cheikhu murabbi yaa ngi dégg ku jël tariqa bi jox ko Cheikhu Tiyaani mu nekk tariqa boo xam mu mujj si garanté Cheikh Oumar Foutiyou Tall koro bi nga xamee ne dem na di laaj tariqa yoon da ko wax ne ko tariqa bi ñuy garanté jeex na li des mooy tariqa Tiyaan rek soo bëggee nga am tariqa jàpp si tariqa bu ñu garanté demal si tariqa Tiyaan taarix bu gudd na lool waaye bëgguñ guddal bi mu demee jàpp tariqa Tiyaan yàlla may na fi doole goo xam ne mun wax sax ne am doole goo xam Sénégal amul ko fenn si jàpp gi mu jàpp tariqa bi ndax tariqa bi moom mujj si tariqa yi te moom rek lañ garanté kon képp ku ci jàpp jàpp nga ci bu mag yàlla waaye itam képp ku ci jàpp rek dinga nga texe ku ci jàpp texe at yi faydu bi itam mooy ooteeg yàlla bi nga xam ne moo leen yoonu sufiyanke yi daxañ na faydu bi moo tax waliyu yàlla yëpp seen may yëpp yonent bi mu ngi ko daxañ ci cheikhu tiyaani moo tax mu ne kooku mooy seen imam in haada imaamukum summa haada daxañ ko ci moom def ko ci moom moo tax ku jàpp tariqam texe nga dégg nga képp ku ko jàpp texe aji nga ba itam b mu feeñee oote yaa ngi dégg feeñee ñaari maqaam yooyu dégg nga wilaayatu yëpp bàyyi sa leen toog ci yaa ngi dégg doon yonent bi nekk waarisam doon Cheikhu Tiyaani nekk waarisam oote faydu bi képp ku jàpp si faydu bi teexa nga waaye képp ku si jàpp dégg nga jàpput teexa aji nga kon nag la xadis ba waxoon dégg nga yom sallallahu alayhi wasallam mu ne am na xeet woo xam ne gisuñ ma waaye ñoo ma gën a bëgg ci yéen saxaaba yi daan déedéet mënut a nekk ay yonent bi ñu ñi nga xam ne gis nañ la bëgg nañ la topp nañ la kanaat du ñun de mu ne waaw ñoom gisuñ ma de waaye ñoo ma gën a bëgg ci yéen mbëggeel googu nag bala nga koo am dëgg-dëgg faaw nga ñëw ci faydu bi moo tax jàpp faydu bi texe aji ñàkk ca jàpp jée nga jée nga jàpp faydu bi texe jàppoo ci rek texe aji ba faw moo tax waaris dee nga wiraasu googu bàyyi doon ci moom nit gi nag ñëwee nekk nuurul ilmi ni dina ñëwé nek nuru rushdi ni dina ñëwé nek nuru tuqa noonu la fay di itam nekkee nuru rushdi nuru ilmi nuru tuqa kon na yàlla na yàlla fay Cheikh Ibrahim móot ak faydu yàlla na ko xëñ ci ban bobu di xëñ yàlla bu ci kenn ëppale ba ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla yok suñu mëggel ci mom yok suñu dëgg ci mom yàlla na yàlla jéggal suñu mbolem bakkar waaye itam omman ñu boole ñu ci umma bi waaye omman ñu boole ñu ci dëgg-dëgg ñu nekk ay taale baay ci barke Alxuraan dara su bàyyi noonu yàlla ñu yàlla may dëgg topp lépp lu ci jub ci borom kat bu mën a woy gii la rek mooy Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu mi nga xam ne léppam barke la ngëneel la waye lépp lu ci ñum te ci jàmm bëri wax bi rek la di wax waye Cheikh Mahamadul Maahi ma waxoon ne jëm leen bo leen jëm rek di ngeen mën wa ma zalika ala llahi bi wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa qad وقد تم فتحي عند مهدي وقد حنت جميع رجال الغيب تحت قضائي فما قطع في شرقي والغرب فدفدا الى مكه الا لشم ذا